mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak réew mi fm daleen ak jàmm ci seen émission démb ak tey ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu bi euh, ni ngeen ko déggee nag tey euh, ci euh, première émission année 2021 dañu am mbégte lool dalalaat suñu maam Ousmane Sène Blay nekk magum socialist yàgg lool ak président Senghor ñu war a nag waxtaanee tey ni ma ko waxee 31 euh, décembre 1980 décision bi président Senghor jëloon te mooy démissionné yégal askan wi ne dafay euh, bàyyi nguur gi teg ko euh, ci loxol premier ministre ba woon. di eh, Abdou Diouf loola nag eh, ban context la ko defee woon waaye lan moo ko waraloon dëgg-dëgg ak ñoom ñi nekkoon ak président Senghor naka la ñu ko jàngatee askan wi itam naka la ñu ko dundee woon loola yépp la ñu bëgg a waxtaanee ak yow maam am mbégte lool nag nga nekk suñu gan ci at mu bees mi ñu door eh, démb ak tey ci 2021 bi ak yow di la gërëm di la ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér ndax bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo ñu mën a seedeel ci li xew démba kon yàlla na nga fi yàgg lool te wér seen ñu ngi lay nuyu dalal ak alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah sant yàlla dolli si dama ko santoon bu baax baax baax di julli di sëlmal Seydina Muhammad sangi-sang yi di ñaan rabbi samaawaati wal ardi samay ñaari waajur xippee si bal sàq sëriñ Babacar si sunu sëriñ di la nuyu yow Fatou Thiam Ngom sama sët bu baax a baax a baax yow danga bokk si ñi may dundal kon yàlla yàlla la barkeel sa liggéey barkeel sa njaboot jubal ak sa boroom kër ak Mbaye Diop mi xam ne si moom ngay liggéey ma di ko nuyu dama ko nuyu waat rek parce moom. li mu sumba dafa diis mooy liggéeyal sa réew mi neexul boo wax foo wax ñu tontu la jëme fa fa nekk kon nag di ko nuyu ma ko mbay di gërëm nag di ndokkeel rek Alaaji Macky Sall chef d'état jàmm mooy sunu jàmm yàlla ko yàlla may jàmm te it réew mi yombul loo wax ñu amun ko féetale bëkk dem wax na góor jigéen du fi am du ko nangu ñëpp a ngi toog am bi seet xalif général des Mourides te xalif général Mouride moo wax si gémmiñam ne dénk na Macky Sall Serigne Touba waaye nañ ko bàyyi waaye góor jigéen mu munul Macky Sall sax kat ñi may fi góor jigéen fii si réew bi wax góor jigéen du fi ñàkk mukk nag amoon na booba yonte bi amul ba humanité amee la góor jigéenam du fi jóg mukk ba yóomal xiyam wala Sénégal boo xam ne du réew moo xam ne dafay ay góor jigéen réew mi dafa am borom am dénkaane kon nan bàyyi wax ji li tax nga ñëw si nag seet si ma tey kontaan naa si parce que ñi ko fekkee tey lii ñoo wax si li ma fàttaliku ñaar la doon wala ñett kon wax Alaaji Mansour Mbaye la ko dox ma Samba Ndiang sa Ndar wax dafa feebar moom ak Alaaji Kabiru Mbóoj nga xam ne am na juróom-ñeent fukki ak juróom bu loolu wéyee nag góow mu li ma lay wax keneen mu na la ko ñaar Senghor tax mu dem mage bu wóolatul boppam muy benn ñaareelu mooy Abdou Lahad Mbacké Senghor dafa Senghor def di gurmet Abdou Lahad Mbacké xalifa général des mourides nekk nit ku dëggu yàlla juboo ko Senghor nag Senghor jàq googu ak tisaa googu nag moo jàpp tey Senghor li Abdoulaye Wade am Macky Sall am Abdou Diouf am ko moom amu ko. dafa sonn. musul am jàmm 1945 waxoon naa la ko la indi kenn xamul Senghor parce que réew bu njëkk dafa dafa ay dëkk la ñu xamoon Ndakaaru Tëngéej Louga Foundiougne Kaffrine Louga euh, Nioro Ndar Matam Bakel ñoo amoon commandant de cercle am am am soit saxaar soit gaal am na réew xam ne amuñu ko woon ba ko Senghor indi ba ko parce que Lamine Gueye dafa am chance Blaise dafa dee ak Ngaladou te ñoo yeneen concurrent ñooñu doon wujjëm guerre bi am guerre bi tas kenn amatul kenn nekk fu lu Lamine Gueye leen xam. Bakar Waly jur ko ku ñu wax Alfred Goux nekk maire Ndakaaru en 1940 gars yi dàq ko jox ko Lamine Gueye mu nekk maire Dakar jox lébu yi cër nag bu fuli bu fuli lébu yëpp ànd ak moom ñoom Mbagam Ndiir adjoint au ñoom Amadou Assane Ndoye adjoint au maire ñoom Thierno Amath Mbeng ñoom Ibrahima Abdoulaye Thiaw ñoom Ibrahima Ibrahima Ibrahima Youssou grand seigneur Dakar. ñoom euh, Mboor Diagne ndey ji réew ñëpp ñoom ñoom ñëpp ànd ak moom Paala Pay ñëpp ñëpp ànd ak moom mu jox leen cër nag it wan nag jële benn tubaab bu ñuy wax bu Boniface avocat la woon def ko bras droit parce que boobu tax amuñu indépendance loolu moo xewoon si contexte boobu nag la Lamine Gueye indi fii Senghor waxoon naa la ko yëpp si góor gu góor gi Malick Fall Ndiir fa la lépp gu daan daje ñoom na booba ji Momar Gueye moo xew nekk commerçant am doole Cheikh Mbacke Gueye de Faty di xaritam Alaaji Ibrahima Niass di xaritam Serigne Mansour Sy bu Alaaji Malick Sy di xaritam Alaaji Amadou Niang Nguy Sy di xaritam dëkk boo dem xam nañ am euh, euh, euh, xam nañ kuy jim Momar Gueye ñu ne ko jëlal mu jim moom Gueye boobu tey ñaari député yam bii député premier collège ak député deuxième collège sa député bu njëkk bi day di doon Ndar gore Tëngéej wala wala wala Dakar ñu ne ku juddewul foofu nag deuxième collège la loolu am doom en cinq ñu fal député. premier collège Lamine Gueye deuxième collège Senghor ba nemee 46 woote waat l'assemblée constituante wante entre temps Lamine moom la loi Lamine Gueye mu supprimer indigénat ñëpp sont devenus citoyens français ñu fal ñu ak Lamine Gueye wala Senghor nag mosul féex si parti si fiiw parce que gars yi dañu waxoon ne dañu foogoon ne gan la fi ñu ko laqal ko am ñu ko si laqal nag. ku mel ne loolu Obey Diop daal ko xatal lool ku mel ne ku wax sel samaan daal ñu ko xatal ak ñeneen ba ñu dem congrès en 48 à Kaolack Senghor président rapport sur la régionalisation li tàngal mu bàyyi ñaar ko wax keroog seen congrès ba ku wax. Obay Diop Obay Diop nag siège na conseil général mook bàyyam waaw bàyyam bu nekkal conseil général bu nekkal conseil général ñu dëkk Bambey bari doole lool di commerçant bu mag bàyyam eh, Senghor démissionné trois ans rek la fi def de bu mm-hmm. mu démissionné ne day ñibbi day jàngale ji. France parce que Senghor dafa teel dem France lang fa dellu sul ba am te Senghor nga am agré agrégation en 1929 kon Senghor bi moo ñëw ñibbi Sénégal am na je crois 45 ans mu bàyyi day day ñibbi am yu bañ nag di si jiitu na mu Ibrahima Seydou Ndaw boobu Mamadou Dia xewul. Ibrahima Sëriñ Ndaw moo xew ñu koy wax laf laf l'avocat en caftan mu nekk homme d'affaires di plaider si tribunaux yi mu ne ko bul dem toogal soo toogee ñu xeex réew mi dina mu jël sa loxo boobu nag conseil général moo am li ma jàpp ma nag xaw ma quarante conseil général quatre-vingts ma nag mais sax quarante lan woon quarante yi nag am ñu beddeeku ànd ak muy Senghor conseil la woon Mamadou Dia muy ñaar Ibrahima di Sow muy ñett Cissé Dia muy ñeent Boissé Pala muy juróom Guillabert muy juróom benn juróom-ñaar benn cousin Guillabert la moom it juróom-ñett juróom-ñett ku ñuy wax Murit Taal juróom-ñeenteel ba di Edouard Diatta juróom-ñeent yooyu ñoo nekkoon ko ànd ak bàyyi nag ànd ak sa ànd ak sa ñu formé parti BDS. Bloc en 48. ah ba nu woote nag constitutionnel pour yóbbu yóbbu Sénat sénégalais trois représentants au Sénat am benn conseil général bu àndoon si li nu foog. ku àndoog Lamine Gueye bàyyi leen dem ànd ak Senghor gaa yi nag ñu ngi ko jiiñ góor gu wax Jibril Gueye dëkk fii si Bargny si njëkk am pal si Bargny si la bokk ñu bari wax na ne moo ànd yeeg Senghor ba tey nag wóorul verdict bi feeñagul Félix Dia nekk sénateur Senghor dénk ko parti bi wante booba Lamine Gueye moo xew ah amul jàmmel ak Senghor xam nga ne BDS musul gañe Dakar musu gañe Matam musu gañe Saint-Louis kenn la bi n'a jamais été battu à Dakar il n'a jamais été battu à Matam il n'a jamais été battu à Saint-Louis coow li bari lool jàmm amul nag xeex bi les bérets rouges nga ko ak les bérets biir rouge yi mooy Lamine mooy mooy Lamine Gueye ku dox Bosco Sow du jaañ ay mbar ay mbëri làmb la woon jiite woon ku bari doole lool fële mu nekk euh, les bérets verts am ku dox Samba Tali ak ku dox Ellebo ñoo ñoo fa nekkoon affrontement yi metti lool sa war amul jàmm cinquante ñëw yi war a woote Lamine gi jël colistier ku dox Ousmane Socé Diop dëkk Tëngéej mooy premier intellectuel libre Senghor jël Abbas Gueye waxoon naa la ko fii Abbas Gueye nag góor gi dox mbay Gueye jur di mu xàttami sëñ Babacar Sy colistier sëñ Babacar Sy nag li tax mu jël position ak sëriñ Fallou dinaa la ko wax Cheikh Ahmed si Sy Maktoum yàlla yokk yàlla lekk yokk leeram dafa teel a am fayda teel màgg macha allah teel a bëgg lu baax booba temps commerçant yi yore e, il wax SMDR société de prévoyance la agricole hmm. ku noo wax gaynde Cheikh Cheikh Mbacke gaynde Fat baa ko yore woon ñoom jiit Momar Guèye kooku nag ku nekk munoo jur Cheikh ba te ko lool Senghor laaj bi ba ñu ko jox ah, Cheikh Yàlla laaj ba ñu ko jox mu xeex ak Lamine Guèye loolu moo tax sëñ Babacar faral doomam Cheikh Tidiane nag si moom dañu war a bind si moom doom parce que lim waxu waxuma nag en tant que sëñ doomi Sëriñ Babacar waxuma en tant que sëti Alaaji Malick wan dafa teel a majeur teel a am jom xam nga Sëriñ Ba euh, en cinquante et un si ñi yoroon coopérative yi gën a mag Sénégal Cheikh Tidiane Sy la bokk il il avait vingt deux ans xam nga Sëriñ Cheikh Tidiane Sy moo moo moo dafa euh, transport yi onkat ay jënd ay camion xam nga Cheikh Tidiane mos a jënd SCB Sonacos bi ah mos ko moom xam nga seetaan sax moom su ko sim. waaw ak yeneen ak yeneen nag à l'intérieur comme à l'extérieur du pays Cheikh Tidiane Moussa nekk ambassadeur moom la woon bi festival mondial des arts nègres amee fii Sénégal moo ñoom Malraux tous les grands intellectuels yi ngay dégg si àddina ñëw moom leen def conférence sur l'islam et la négritude en français un français impeccable kon nit kooku moom moo tax bàyyam jël position Serigne Fallou Mbacké nag li tax mu jël position yaa ngi dégg grève yi grève yi de fer grève bu metti ba ñi ko jiite woon na ko dox Ousmane Ngom la Ibrahima Sarr Aïna Fall Abdou Karim Sow Ibrahima Sarr Abdou Karim Sow Ousmane Ngom Aynina Fall ñoom nag ay murit la doon di xariti Cheikh Mbacke Gaynde Fatma baayam Mamadou Moustapha Mbacke ku wax Ibrahima si takkoon doomam sëriñ Fallou nag ak Che ak Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mag magantewlu lool ay morom lan te bàyyi ma yoroon xilaafa gi génn àddina mu mu remplacé ko fees dell place bi wante sët la sëñ Fallou doom la ñoom Ibrahima Sarr moom nag ñoom Ousmane Ngom moom ak ñoom ay dina Fall ak ñoom Abdou Karim Sow ñoo doon xaritam takk na sax ta Ibrahima takk na doom ñooñu nag ñoo xaritoog Cheikh Mbacke euh, Fall Mbacke dem ñu xa ñu Fallou Mbacke Fallou Mbacke ànd ak te boobu ñoo fi ñoo fexe ñoo xewoon ñooñu loolu ànd ak Senghor cinquante et un falu bett ñëpp parce que sax Senghor falu Maurice Guèye ñu ngi wootee 17 juin 1951 vendredi 14 juin heure ngay ñëw fii. parce que Socé ak Maurice Gueye jubóonu woon Maurice Gueye daal Socé da wax du présenté maire bind ko su ko defee mu ànd ak ko deful day bàyyi Socé bañ le 15 juin di di di di juin di samedi le le 15 juin la le 16 di samedi le 17 di dimanche le 16 sur Maurice Gueye bàyyi Casamance it ànduñu woon ak Senghor moment bi ngay dégg FMDC yàgg na. boo ñu koy soog a créé ñoom Ibrahima Badiane nekk fi ñoom Ibou Diallo ñoom Demba Koyta ñoom Mandiang ñoom ñoom Koli ñooñu fa nekkoon Senghor négocié ak ñoom par l'intermédiaire de bureau ba Edouard euh, Diatta Edouard Diatta moo jur Bruno Diatta noonu lañ ànd ak moom Senghor bu fekkoon ne Senghor Casamance ko ànduñu ak ànduñu ak Lamine Gueye Maurice àndul ak Lamine Senghor kon Senghor du falu kon ku nekk day am benn siège. la veille des moo nekk secrétaire général du de la Sénégal et de la Mauritanie boobu benn la ko pour jub ak Senghor Senghor juboo ku nekk jël benn siège Lamine waa kër Lamine Gueye bañ ñu woote ñu gañe leen ko de xaw taxul guerre bi guerre bi dakk nag xeex bi continuer di continuer ba cinquante six ñëw Lamine Gueye jël Assane Seck colistier Senghor jël Mamadou Dia ju génn Abbas Gueye Abbas Gueye di buq fële lébu Mbaye Gueye juru ko abba mu am mu mag raq ay mag yu yenu maanaa Abdou Razak Gueye bu ñëpp xam mu jur maître maître Matar ak Abdou Razak Gueye ak Alaaji Makhtar Gueye Serigne Babacar di sëriñam di soutien Serigne Babacar di soutien Senghor Senghor ak ñoom Joseph Baye ñoom Ousmane Ngom seeti Serigne Babacar nekk na woo Abbas pour Abbas nangu ñu def ko sénateur jox ko place yi ja xam nga lébu xeet bi spécial la tabaski na mukk il n'est pas question koy delloo daal li mu yore woon parce que démérité wul mbaa mu dem yoonam si la bàyyee nag moom it créé partem ànd see xale lébu ndakaar yi koor sangoon amati beneen foron loolu di continuer cinquante six ba cinquante neuf guerre baa ngi xeex rek wante entre temps nag mu am cadre loi bi ndax loi Gaston Defferre du moom sax daf ay ay ministre Lamine Gueye nag amoon na ku dox Abdoulaye Fofana man secrétaire général am ku Ousmane Socé entre-temps mu nekk mouvement unitaire socialiste ak in Obey Diop ñëpp bàyyi ànd dem ànd jeeg Senghor moo tax gars yi wax transhumance hmm. ñaaw làmmiñ ak ñàkk xam àddina ah, ak ñàkk xam politique loolu dafa mës a am hmm. politique andi andi andi intérêt yàlla waaw foo gisatul sa bopp nga dem waaw foo gisatul sa bopp nga dem hmm. te ku nu fal doo mun yore yëpp il faut que séddaale te il faut que teraanga ñooy ba gars yi di rocceeku par kenn kenn ba Lamine ngi xam na ne bu jubawul dina jeexal mu jubóo wante jubóo jubóo bu musul nekk jubóo dëgg si àtte Senghor Lamine Gueye bu si biir parti bi Mamadou ma laaj ay ministre Lamine Gueye pour mu jox ko dugg si gouvernement bi dama nga jox ko ay ministre jox ko ku noo wax Maître Babacar Sèye jane mukk waaw parce que Maître Babacar Sèye ak Ablaye Maar ñoo taxoon ñoo telewoon BDS siiw sa ndar mu mos na jël Amadou Babacar Sarr ñu koy wax Chapar kooku mook Ibrahima Sarr ñoo bokk ndeeg baay ñoom ñaar siège nañ dans le gouvernement ensemble ñoom ñaa nekk candidat conseil de l'union française kii au nom du parti socialiste kii au nom du BDS Babacar Sarr leen jur jàngalekat loolu am dool dëkk ndar ndar par pire ba nga gaa yi seen ne ko lu xew mu ne wax xaw ma la xew luy xew de waxtu bu waree ma dégg wiiw su Babacar su ëmb soppa Babacar Babacar farule Ibrahima Sarr dina fal mag ñooñu ñoon magi cosaan Senghor di ko def nag ba Mali ñëw ñu fédération du Mali def une assemblée nationale de quatre vingt de quarante membres vingt maliens vingt sénégalais def un gouvernement de huit membres quatre sénégalais quatre maliens Sénégal di jël nag Abdoulaye Fofana Doudou Thiam Boubacar Guèye Yagmar ak ak euh, Mamadou Dia. maa ngi soxla ba tey amul jàmm de xeex baa ngi continué rek. te li fi wax nii yëpp amagul jàmm. fu ma koy jëlee ñe parce musul musul mokk ah boo defee fédération du Mali Soudan France ak Sénégal maliens yi bëgguñu sagal comme président la République xam nga Mali Guinée ak Mauritanie ak Sénégal dëkk jullit lañu te bu ma wootee congrès. Mali dinañ ñëw en bloc ànd ak Modibo Keïta Sénégalais dina am ñu ànd ak Lamine Guèye ñu fal Lamine Guèye loolu la gars yi bëggoon mais comme daana jafe ñu bëgg a fal Mamadou Dia wante Mamadou Dia lànk nag lànk ba tëdd sa àll ba waaw bu trahiroon soo dëkk présenté bu ko dëkk mukk mais nanguwul ba demee congrès Cotonou en 1958 délégation bi demoon pra Sénégal la woon. ancien socialiste yi ak BDS dama bëgg tur tuwoo tur nag seen njaboot ngeen dund wante ba coow la bare dañu mettre en minorité Jacques ak Senghor ñoom Abdoulaye Ly dañoo mettre en minorité Abdoulaye Gueye Kabir ak ñoom Thierno Ba ak ñoom Assane Assane Seck da mu jëwul dem am na ko ko si jël parole wante bu demee Sénégal teg sa saaga mu bon sa kotunu waaw ah, waaw Amadou Babacar Sarr Sopar moo tontu ma ba suñu xeexam moom. njibi Sénégal. le plus posé. te côté yoo xam ne dañoo woote non. loolu côté jël décision. muy Djiboka muy Niger gi di Soudan français ak Sénégal dans la fédération du Mali. ak Burkina Faso ñu wax Haute-Volta. bi ñu ñëwee. booba temps dafa am ku wax au fur et c'est dommage que les historiens sénégalais ou africains ne parlent pas de ça il a été trois ou quatre fois ministre d'État français ministre d'État laa wax de. waxuma secrétaire d'État wax ba dara waxuma ministre mais ministre d'État moom ufuyet booj contre Senghor la parce que Senghor Senghor dafa bari front ñoom ñaar ay jëleen woon ku nekk am sa groupe ba parti si la Mali ba si la Soudan français génn ak daaw mooy Bénin parce que quatre la Soudan français Bénin Haute-Volta ak Sénégal ufuyet def pression si Haute-Volta mais Burkina Faso tey waaw kooku ko dox Boris Yamayugo ma fa nekkoon mu bàyyi beneen ku na wax Hubert Mbaa fa nekkoon ñëpp RDA leen nag ñu bàyyi ministre Mali Mali coow si coowam Senghor amul jàmm wante Dieng nag a été loyal jusqu'au bout. ñu dàq Mali le 19 août 1960 Abdoulaye Fofana moo may nettali nag dafa génne bureau am daje Kéba Mbaye si couloir bi. Kéba yi ne ko waaw monsieur le ministre vous n'êtes pas en réunion mu ne ko ban réunion mu ne ko fédération bi mu ne ko non demuñu mu ne ko ah sam Ablaye Fodé tiit yéeg seen jaay ñu ne ko yéeg dafa léegi ak wàll jooju ngeen seeti seconde la ñu fekk naa la ko. sa sa le 19 août ñu woo ñëpp ñu ñëw ñu gën a marié. dans la nuit ñu proclamé leen représentation du Sénégal. ci place porte mooy mooy affaire étrangère fi mu nekk. place de l'indépendance tey. bon place ñu ko nekk tribunal de Dakar. avant mu dem Cap Manuel. France ànd ak ñun jox ñu suñu indépendance. xanaa guerre baa ngi guerre ba tey. kooku cinq soixante la. soixante et un soog la wax ak man nag. seen ma ne ko monsieur président mu ne ma ku la wax cinq moo jural Hassan deux mu jural Mohamed six fi nekk. à la réception même le marabout Cheikh Tidiane est venu en smoking jaay est venu en jàllabi. ma dégg wax ja nag. Senghor ak Mamadou Dia santé la commencé yàqu. parce que Mamadou ja dafa xëy xëy yàlla xiir ko si diine ak dëggu boole ji am jikko nag am xaddar nekk un homme loyal te it Senghor it am yoo xam ne jubóowu noog moom ku mel ne Joseph Baye ku mel ne Obey Diop mosuñu teg Senghor fenn mosuñu ko mosuñu ku no wax Ablaye Ly ku no wax Ablaye Gueye Cabri ku no wax Thierno Ba mosuñu ko fonk su ma la ànd andi circonstance ànd Senghor nag ak ja commencé coow waxoon naa la ko fii Senghor ak ja seen coow avant avant décembre 62 la xam wax naa la 61 en 62 dafa jóge vacances France wàcce aéroport comparé suñu suñu suñu hymne national une musique de fête foraine <laughs> kenn ñi ma yul tontu bu ko wax Amadou Racine Ndiaye yal na yàlla sara ya xam moo te réunion MGPS ñu jël position condamné wal joojo wala ñu dañoo ko def nag te moo tax xale xale rek la amuñu doole jooju. jaa dem tournée économique waxoon naa la ko. tontu fa Serigne Fall tontu boo xam ne kenn ko tontu kilifa. wante Serigne Fall yàlla yàlla na yàlla yokk leeram dafa di si yàlla mun na bàyyi leen rek bàyyi leen noo gën a yéeg gën a kawe rek boo daanoo sa daanu gën métti. teguñu sa weer ñaari weer si la ja daanu. wante en tant jaa dem def fi Moscou wuti armement ay bateau de pêche. pour ku dëkk société bu dox su sàpp ba mu ñëwee nag xam ne sawar communiste rek la bañ mu taggaleen ba le 14 décembre nag muy ba si àjjuma feebaroon du ma garaaw sax mais dama reposé gore dafa euh, James député maire de Gossas déposé motion de censure guerre bi déclenché rek entre les amis de Mamadou Dia li sabili segoor. beneen xeex jógaat. waaw pe musul musul noppalu ko moo tax ma wax la lii ma la mm-hmm. ah amoon na benn commissaire de police bu doon enchoué mm-hmm. daaw ma yàlla woon mooy beneen waa. Mm-hmm. solo solo solo loolu na waa kër Mamadou Diaye lool lool lool lool. les amis de Mamadou Diaye ont été brimés frappés. humilié. su dee yéen a ngi teewlu émission démb ak tey ngeen di déglu ci réew Rewmi FM ñu dalal suñu maam Ousmane seen Blay di magum socialiste ñuy waxtaanee démission bu président Senghor 31 décembre 1980 maam li nga fi wax ni yëpp firndeel na ni Senghor sonnoon na lool ba mu jotee nguur gi la tamu ko jot sax newut wut ci jàmm. Ah. Euh, fitna googa ak yeneen. moo waral mu euh, tekki ndombal tànkam nga ne euh, ci 31 décembre 1980. Mm. waxtu baa ngi ñuy dab léegi nag ñu ñëw ci bi président Senghor di démissionné euh, maam Ousmane Sène Blay lan moo ko motiver dëgg dëgg dëgg ba bis booba mu jël décision boobu. 68 mai 68. doom yàlla yàlla mos a bu ngi sol chemise courte manche bu bu bu bu xàll. di wax tiré à hmm? booba jaaxle na. lool lépp jë lépp takk. booba ku doon Clédor Sall boole gouverneur Sénégal Jean Alfred Diallo moo nekk chef de major général. 15 heures pile ñu gaare hélicoptère. si palais bi. si président de la République si cour bi. Senghor dugg Clédor Sall dugg Jean Alfred Diallo dugg ñu ñu ñu ñu survolé Dakar. ñu ne ko regarde ton pays. où est ton parti. ci bureau maa ngi toog it fekk naa ko. woo nee nañu woo Kabou Daniel ministre la ministre secrétaire général de la présidence moo ko jëkk a doon. daaw la bu dëkk secrétaire présidence bi mu amoon. ne ko téléphone gouverneur yi Kaolack. gouverneur yi Thiès. gouverneur yi Diourbel. ku fay parti socialiste. na ñëw Ndakaaru. bu ñu ñëwee jubal maison du parti. nan gànnaayu. Racine Ndiaye mii moo na Senghor. man naa dem. Diop Diadio. teeru leen. man mi wax ak yow. boo tax ñu ngi soog a amoon oto yu idée yi borom bët yu yooyu. ñu ko mujjee gaare. Dakar nekk en état de siège ku ñu wax Pierre Béarnès. moo doon représentant journal bu ñu wax Le Monde. nekkoon na surprenant de sénateur français à l'extérieur. def benn art benn article ne le le le régime de Senghor est par il faut simplement se courber pour le ramasser. ku ñu wax Abdou Aziz yàlla ko yàlla yëm si yàlla ko Ablaye Diack gouvernement bi maak Ablaye Diack ak ku ñu wax Badara Mbaye yàlla ko jëli. bés boobu nag Senghor tiit amatul jàmm fekk mu supprimer le poste de premier ministre si la jële Abdou Diouf def ko premier ministre. boobu taa yi la xamal war na bay Senghor dafa am jabari tubaab. te tubaab du xëccoo. surtout tubaab bu jigéen. danoo bugg a jàmm. sa la Senghor bëggoon démissionné. mais amuloon ko fi def. te wóolu ñi fi nekkoon ti ay xaritam la faloon ko. te loo ko ñaanal sa doon sa dee ñaaw. Senghor jël Abdou Diouf mooy dégg Senghor jël Abdou Diouf comme premier ministre tegu ko fen mu nekk xale. il avait 26 ans. te Abdou Diouf keroog bu ma keroog bu ko jë jaa ko jël. keroog bu ma si jaa ànd ak Habib Thiam à la rue Cherche Midi fa la ambassade ambassade du Mali nekkoon keroog fekk naa ko. Abdou Diouf fàttoon naa xamal naa ko si la mu yegg naa ko mais naa Habib Thiam parce que champion de la REF la woon athlétisme. su la ko jaay indee. bi bi c'est le deuxième gouverneur du Sine Saloum. bi 62 amee ñu ne def motion de soutien de fidélité à Senghor moom signé wul dafa dem yoonam wax dafa am xale bu dox Habib Thiam Habib Thiam nekk directeur de cabinet Doudou Thiam Doudou doole jege Senghor lool ñu jël ko ministre comme comme comme directeur de lu mu am si àddina ginnaaw yàlla tam si Habib Thiam la jóge comme que ministre des affaires étrangères la voyagé. bu lëndee la veille du conseil des ministres. moo indi dossier yi discuté ak Senghor Senghor gis na c'est un et valable parce que il est major de la major. de l'école de la France d'outre-mer te sa war a enseigner à l'école de la France d'outre-mer su ko jëlee directeur de que Senghor xam nga boo faloo nit gars yi xam luy nguur dafa metti Senghor da ko fal directeur cabinet ministre président mu jël un financier jara ku ne wax Kanku Kulbali moo ko jur Kanku Kulbali nag xam nga Kanku Kulbali bi basket mooy tu mooy bàjjenam un financier au bout d'un an il s'est trompé mais guerre xeex bu metti bu ma xeex mu jël un poète Lamine Diakhaté il a fallu nag les années 62 ki mu comprendre jël Valentin Valentin dem mu jël Abdou Diouf Abdou Diouf dem mu jël Alioune Sène Alioune Sène dem mu jël Babacar Ba booba temps ku wax Baara Diouf Alioune Sène Babacar Ba ak atee son xew di xeex Moustapha Niass wax Moustapha Niass waroon weeru dee mu def ay mandat yu doo ku wax Massamba Niang yónnee ko njabootu Siré Thiam yónnee ko njabootu Alsane Pay Jaraaf ak man mii ak ak ñeneen nag parce que ñun ñoo xeex ba sama def ko directeur de cabinet waaw Abdou Diouf mu demee ñëpp dul foofu ba Moustapha Niasse la jël ndax la mu def si parti bi boo ko xamul boo ko fekkewul dégg nga ne def na une conférence sur Senghor à la maison du parti conférence bu méttee méttee métti donc commissaire Boubacar Ba dafa tëj si mine à Bagdad moo njëkk nag commissaire euh, yooyu ñooy jàpp ji ñi fi fi la Karim Begg Karim nekkoon Karim Karim Wade fi ko si fi ko yóbbu nu mu tudd. Kéré Kéré moo fa njëkk nag commissaire. ak ku ale Pape Ndiir ak ku man ak ku ñoo Abdou Aziz ñoo fa xeexeex boo xam ne jar na décoration. tax Moustapha Niass. bi Abdou Diouf tëbee nag mu jël Baba mu jël Babacar Ba. Alioune Seck nekk ministre. bu jël Alioune Seck 70 mu jël ministre Babacar Aliou Sène ministre de l'information au lieu ñu jël jël Alioune Sène as Alioune Sène nekk ministre de l'information au xeex nag ñun Babacar bi nekk nekk de ministre de jël Moustapha Niass loo ko jàpp si nag loolu nag jàpp Senghor Abdou Lahad nag xam nga 1963 si la inauguré say jumaa tuubaa Senghor dem sa àddina daje fa discours dana inauguré benn foora forage te forage bi sëriñ ab sëriñ Abdou Lahad yaakaar na ne moo ko defar xam nga chef d'état rek ñaare yii nag sa bopp day bari mu ne sëriñ Fallou ko sant la réaction de Abdou Lahad comme Abdou ko bëggul yokk la responsabilité totale mu la ko dangay nar. Ah, waaw a ngi toog. Senghor était gêné. ñu dugg si oto bi. ak Philippe ak Serigne Abdou Aziz Dabakh. ak Serigne Abdou Lahad ak Senghor. Serigne Abdou Lahad Serigne Abdou Aziz xam nga defarkat la. bëgg a bëgg a a a tontu def mu ko defar. mu la ko Serigne Abdou bàyyil bi. kii baaxul. Ah, waaw waaw. xam nga kuy sama seede. Ousmane Camara bu ngeen dundal boobu mooy ministre de moom moo jël hélicoptère. boobu ku ñuy wax Alioune Fall directeur de la rajo moo jur jéemati Fall. pour loolu Abdoulaye Xaw forage boobu ñu bañ ko jàllale si rajo bi. yooyu moo jàpp Senghor. président quand même situation yooyu. waaw ak nag commencé wéri daalu cinq si bureau am. Hmm? waaw waaw. dafa sonn. dafa sonn waaw. il n'avait que soixante-quatorze ans nag. léegi la soixante-quatorze ans ànd ak sagoot bu njëkk ña ñi ñi dee ah, ah, bariwunu. ñu di plus soixante-quatorze ans. Hmm. bariwunu euh, doom. yooyu jàpp nag. bi dafa kii woon gàttoon. waaw. wóolootul woon boppam. waaw ba xam boobu temps médecin amul. waaw. Euh, euh, faatu. en 1948. yaay pas trois médecins docteur ku ñuul. laa wax de. Mm. yow ki ne médecin africain. Mm. boobu ñaar hôpital indigène am muy hôpital Dantec bi ak hôpital principal jeex na ak benn hôpital bu Sandial. ak benn bu nekk Faidherbe jeex na ay tuuti ay infirmier du infirmier sax du du réew mi dafa avancé doom en 1948 42 ba 60 di nga dem kër fekk fa climatiseur mus amul boo amee frigidaire da nga koy def sa salon. ñëpp di ko gis ak frigidaire pour woon tiitaru <laughs> léegi ku def frigidaire wala congélateur du la ree mi dafa change les gens ne se compte bu njëkk ñetti école Maamoun école Médine école Malick Sy école Malick Sy 42 la école Thiong école Faidherbe école Médine amoon. école Faidherbe école Thionk jeex na. te ngay ma dëkk yow benn école fa woon benn rek muy école Matar Seck bi mu tudd mu école école des garçons. ba yeen ba tubaab jalaaw ba sàngalkam benn école bi ñëpp fi lañ daan jàngi. ñëpp fi loolu nag moo tax Senghor démissionné démission bi démissionné ñun d'accord ñu si woon. waxtaan na ci ak yéen avant. dee waxtaanu la kenn. Hmm? waxtaanu la kenn wala xamoon na nag fa la jëm ak moom. boobu jë dix ans premier ministre Abdou Diouf rek moo ko def def cinq si six cinq ans ou six ans directeur cabinet def deux ans secrétaire général de la présidence de la République kon yaakaar nañ ko wante ba ma génnee article cinq nag muy muy coobaree boppam si ñu xam ne Abdou Diouf la am na sax ñu gëmul woon loolu. te nag boobu temps daanu na deux fois syncope léegi léegi nag muy wax di naax waaw Ablaye war nag def teg ko pression it. muy beneen front yit muy beneen front nag mu am nag ay ennemis de taille Mamadou Dia génn na ne baal na ko wante ñëpp xam ne kenn du ko mu daal baal Abdoulaye taxaw fële euh, ñi euh, Abdoulaye wax di ñëw. ñoom xale yu màgg ñoom Landing Sane ñoom Masmoud Diop ñoom ñëpp dal si kawam nag. ne àttanatul lii. ak Cheikh Anta Diop ba xam ne àttanatu ko. te yaakaar nag Abdou Diouf na ko remplacé du ko ab Diouf remplacé it day mel na moo fi nekkoon. waaw foofu da juum na si it. wata waxoon na ko ne da ngeen xam ne Abdou Diouf mi ngeen xam mii ngir gis ak Abdou Diouf dëgg du benn waxoon na ko de. loolu moo tax Senghor dama nag moom moo tane Abdou Diouf seet na Abdou Lahad seet na Abdou Aziz seet kuy sëriñ si mi wala kilifa seet na la wax ak yow. wax la li tax mu tekki ndombal tànk. xanaa xëy na soo waxuloo ko ne daal mag la. te def bàyyi xale bu mu wóolu. Hmm. mu ngi dem. waa keroog ba mu annoncé ca discours am ba ne dafay démissionné yéen lana nekkoon seen réaction. tiit. ak mbetteel ak mbetteel. donte yaakaaroon ngeen ko. waaw yaakaaroon ne dina dem. waaw du fa Abdou Diouf. Hmm. parce que Abdou Abdou Diouf bokkul si parti bi. xam nga chef d' état dana am naïveté. Hmm. Senghor jël Abdou Diouf comme premier ministre bluff rek la. Hmm. te parce que bluff baaxul si politique. tegu ko fen te ña doon xeex démb nekk fi. nekk fi waaw Abdou Mbaye Abdoulaye Wade jël na ministre médico social bi xamu ko. kooku dafa tiit ne man jànguma bu fa lay Abdoulaye Wade waaw xam nga am na fi Abdoulaye Wade jël Mame Madior premier ministre tegu ko fen Hadjibou Soumaré tegu ko fen fen la ko tegul naïveté chef d'état rek mu mel noonu Abdoul mbay kii jël ko premier ministre. Macky tegu ko fen maa ko bind lettre man mii. ba ma koy nommé ne ko def ko erreur Mor ngi Mor nag mooy directeur cabinet Senghor Abdou Abdoulaye Wade boobu euh, ab Macky Sall ma tontu de mu ngi dundee mm. ne ko ne di nga réccu li nga def seulement Abdou Wade Abdou Abdoulaye Wade. Mabdou euh, euh, Mbaye n'est pas un homme politique mais borom jikko te li da ko jox li mu da nga ko jox li lay wut. dafaa am bàyyi bu ñu wax Kéba Mbaye yal yàlla yokk leeram muy muy référence. yar boppam yari doomam à sa façon la ma waxoon gis na ko parce que Abdou Wal Abdou Mbaye ren mu jox teraanga ak Thierno Sall xaw ki sant Sall ak Aminta Touré Aminta Touré ko mais depuis moom depuis 2012 chaque fête chaque événement yónnee ko message musuma tontu xaw ma ko nambu ma ko Aminta ak ki sant Sall ak ak euh, Abdoul Mbaye euh, ak ku xam àddina ragal leen wal jooju def def na sept ans prison Mamadou Dia dix ans Ablaye Folomo la ko ministre de l'intérieur euh, ñoom ñoom Ousmane ku nekk nekk fii yoon tàggu sa tàggu tàggu sa président li ñu wax mosu ñu ko wax kenn mosul wax affaire état état du caaxaan secret la te ëllëg si nit am na ñoo xam ne seen nekk si am na borom xel yaa ngi fi. Aminata Touré amul yu mboq Abdoul Mbaye amul yi mbokk kooko sant sala bu ñu mbokk. kon doon nañ leen yedd. kon doon nañ leen yedd wax leen. léegi askan wi tam keroog ca guddi googa président Senghor waxee loola gannaaw yéen tiitaange geeg mbetteel gi lana nekkoon euh, de manière générale réaction wu sénégalais yi ci boobu décision bu président Senghor. xam nga par parlo dafa foor te nag teraanga boo ko amee doo bëgg mu yàqu te kaw ab yu fallu ko kenn mënu si dara ñu adapté wu dama lay wax rek la la veille. dina fal Abdou Diouf. je crois que c'est en février 70. dafa am ko ñu wax Pierre Senghor. moog Senghor ñu bokk mu jubal sa ñu ñëw fekk Senghor Senghor ak Bolot ak ñoom Colette. ñu ko sa ton moo lay seet. dégg naa te wax ma te wax ma nettali nag mu ne ko il vient aux nouvelles <laughs> la veille laa wax. Mhm. pour te dire que rek ab betteel. mu ñëw moom frère personne ku neexoon deret la. Mhm. ku ku avenant la woon. Mhm. moom frère nag def parce que coono nangam nangam nangam nangam nangam xam nga rek yariñ ko mu ne Colette excuse moom waxtaan ak sama frère. ku la jóg dem mu ne ko coow li bari na kuy premier ministre mu ne ko Clédor Sall mu ne ko merci merci mon frère merci nangam nangam daal jubal ko Clédor Sall ne ministre Clédor lal bu nu commandé lali deux mètres et quelque la ndax du Diouf kon xamoon na li xew yëpp. waaw mu ne ko man daal xam nga mag mën na bàyyi si réew. Mm-hmm. soxna si sax def ko Abdou Diouf xale la mm-hmm. te moo fa ci tamit mag mag laa mm-hmm. mu ne ko déer mu ne ko am kay ku nekk xam nga bopp du bopp du yenu wala xam lu bët yenu xam bopp am pour te dire que saa à la place à la place yaakaar nañ ko mais yaakaar na bu sawar di fal day fal du caam wala Alioune Badara Mbengue walla wala mm, mm, uh, uh, uh, Guyader yooyu la gaa yi foogoon. bett na nag génnee ci Abdou Diouf. waaw nag comme que ñuy aussi politicien. Mm-hmm. mooy teraanga Senghor dafa la ma doom Ousmane c' mu mm-hmm. un vice président de l'Assemblée nationale wala un ambassadeur. Mm-hmm. ma ne ko pourquoi monsieur le président mu ne pour ma ñàkk avantage tey gars yi dañoo coow xale yoo fi nekk rek ñàkk ñàkk a teggin ñàkk ba mosoo gis politicien bu am jabar bu am xaalis dimbal ma ko politicien bu am xaalis li mun nga lépp taax yu rafet yii oto yu rafet yii du c'est pas les hommes politiques de kun si dax boo amee juróom benn weer soo amee ay ñaari at loof wut ndimbal waaw da nga da nga da par hasard la gars yi bàyyi politique dellu si waat ànd ak Macky Sall wànd ak Abdoulaye Wade ñu toroxal la ba noppi. am na lu ne suuf. mais ku yaakaar ne Idriss Seck dafa ànd ak Macky Sall parce que ñoom yaa doon waxtaan bu jubóo da ngay juum loxo ma ko gisi ku yaakaar ne Idriss Seck Abdoulaye Wade ak Abdou Macky Sall dina jubóo rek ñoom ñaar si kasaw kasaw da ngay juum. ñëpp xam na ne loxo ma ko gisi kooku def làmb nu mu tudd sant Ndiaye doomi Aly Ndiaye ji. Asin Ndiaye Asin Ndiaye lu tax lu tax mu bàyyi làmb. du sama yéen a ko bàyyi làmb du bàyyi. Mansour Mbaye xam nga Mansour Mbaye sa xarit sa maam. dafa def jàkkaarloo di sa am xaalis. lu tax defatu ko sëriñ bi ne ko bàyyil. jàkkaarloo. waa man tey waa kër la ñëw bu ma waxoon demal raamal Macky Sall du ma demal raami. réew mi réew tradition la. réew aada la. te aada bu fekkee diine daan ko daan ko. kilifa diine tamit am fi wàll. am gën si bokk. tey bu neexoon Serigne Serigne Serigne Touba. neex Serigne Mbaye si neex Laayeen yi. Macky Sall du du fanaan du fanaan pale ba. ba Ousmane Ngom alkaati sànni juma El Hadj Malick avenue Maginot mu dem dem dem dem Tivaouane. ne day day baalu ji. dana ko doo génn il a fallu ñu mobiliser toute l'armée pour génne ko Tivaouane loolu mooy réew mi. les gens nag ñaan naan tiennent pas compte. Mm-hmm. Serigne Touba Serigne Mountaga yàlla yokk leeram. nañ ko bàyyi li mu war yëpp def na ko Macky Sall dénk naa la Serigne Touba. kon kuy dem seeti Serigne Touba su koy seeti si Macky sal wax fa lu baax. mbaa mbaa te Serigne dina am dina am teg dana leen yar. Mm. li ñuy wax waaw rek. Mm. mais duñ ko def. Mm. Serigne Mansour Sy wax si gémmiñam am na yoo xam ne du ma lekk seen xaalis damay maslaa jëm lu ma jox ma joxewaat ko. nan bàyyi réew mi góor jigéen du fi am te yàlla yàlla gëj na yónnee sa yonent yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. yónniwul kenn. soom yónneetul kenn. moom la yónnee téere téere gars yi dañoo alxuraan jii ñette ko defar te gars yi dañ koy fàtte si Ousmane Seydina Ousmane a ko yaxal waxtaan sàdd yi ak maas yi dañu woo borom xam-xam yi. ñoo ko amul amul amul amuloon euh, ponctuation yooyu ñuy wax amul. amul woon si alxuraan ay nit ko def. waaw ba nu noppee xam nu def. Mm-hmm. doon woo ay borom xel yu rafet parce que alxuraan dafa am yoo xam ne kenn du ko werante da xam ne kii yàlla la waaye léegi am na yoo werante ba tey si am na yoo xam ne dalul ñaa ngi koy werante ba fi mu tolloog man si alxuraan parce que da dalay wóor ne kii du waxi yàlla waxi nit la wante borom xel mu rafet la rek kon nan moytu tey dañ bàyyi coow li amul njëriñ léegi ku léegi ku saaga ñu foog ne si nga bokk. waaw Dakar lii ngay wax doom coow li am coow lu rëy xam nga Dakar am na ñaar fukki amul maire ñaar fukki amul amul xam nga Pikine am na ñaar fukki at amul maire Tëngéej gii ma dëkk am na ñaar fukki at amul maire xam amoon. la la la la ville la ville amul woon ville la commune de Grand Dakar amoon ba yeen sàngal kam sëbi xutaan vingt ans hmm. waa waa nit ñee fal lu dëgg hmm. waaw ko mu am département ak mu nekk ville nit ñee fal ko amul mbooloo doo falu te gaa yi Macky wax na ko barke démb bëggoon naa ko yàgg naa ko wax na ko wax 2012 la dugg si parti bi la am parti le 18 19 ordre cor or 19 ordre euh, coordination yi si Dakar moo rawoon 18 yi point rek la gayul woon gars yi koy fàtte en 2012 mu c'est lui a gagné Dakar en 2009 bokk yaakaar gagné Dakar benn yoon la mu perte Dakar. en deux minutes te ñi falandoo ñi àndoo Khalifa Sall 18 la woon 18 yëpp falu 18 yooyu 13 dem nañ ànd jël ak Macky Sall fi ñu toll. yaay la koy fàtte ñi ñi ñi ànd ana ana kii Senghor Auguste Senghor ana Alioune Ndoye ana Ousmane Ndoye ana Khady Santé Agne ana Pape Seck. ana ana Bathily Wakaam ana Ngor ana Yoff ana Pache ana Patte d'Oie ana Parcelles Assainies Moussa Cissé sama xarit maa ngi koy nuyu. kon daal su ma la déggee amul daray politique ci ko am mënu nag da efficacité. Hmm. moo tax ma yërëm Macky Sall bu njëkk ñëpp dañoo ànd ak Lamine Gueye wala Senghor hmm. ñi ànd ak Abdoulaye Wade ñi ànd ak Senghor wala Abdou Diouf hmm. tey ko ku am di licence rek tëgg sa dënn ne man la. il y a euh, donc il y a 6000 villages il y a soo ko calculer muy 597 il y a plus de 4000 bureaux de vote 4000 bureaux de vote wax de bureau de vote bu nekk boo fa amee représentant di jox lu mu mel ñaari junni añ c'est plus de 40 millions. pour nga présenter rek gis nga élection yi ñëw dina am deux cent maires yi bind ko nag si wala lii ma la wax it les gens n'auront pas de candidat deux cent maires yoo xam ne pouvoir rek moo fay nekk parce que politique dafa metti te gars yi xamuñu lu xew Ablaye Wade dafa fekk nit ñi sonn. Abdoulaye Wade bu ko Moustapha Niasse bu bàyyiwul woon Moustapha Niasse bàyyiwul ci bokk mooy faluwaat euh, Abdou Diouf Abdoulaye Wade bu ta bu tàggawul ak Idrissa Seck ak ñi ak ñoom dans ce ñoo mooy faluwaat Macky Sall bu tàggawul ñii mu àndal am ñu bari mënul yóbbaale. parce que Macky Sall dafa niruwal moom génie politique la am na nag erreur xale la wante département boo dem. si 45 département yi. di nga fekk vaincre ñu wax teraanga ñii ministre leen ñii député leen ñii au conseil leen ñii conseil économique social leen ñii directeur de service leen ñii PCA la. Mm. ku ne gis nga sa bopp daal. waaw ku ne gis nga sa bopp. Mm. te xanaa du ñàkk seen teraanga. waaw. gars yi rek te nag amul nag ku ko waxale mm. man Macky sa su ma ko jógoon wax moom. kooku mu dàq Sénégal extérieur. dëkk Fatick ah déedéet secrétaire ki mu dàq dëkk Fatick. moom la dàq nu ma wax ne. Sori Kaba Sori du ko dàq. am na ko wax Casimir. moo ne ko daaf si élection yi. du ko dàq ku wax Mbacke Ndiaye Serigne Mbacke Ndiaye dina ko jël. ku wax Alioune Alioune Alioune Dia bu mbëlëxe moom lay ministre na ku noo wax Souleymane Jules Diop dama na ku noo wax Aziz Diop dama koy dellu si. ku noo dama leen des parce que ñooñu mën nañu wax ak réew mi. kon daal problème casting la am fi ne. waaw am na yoo xam ne kenn du leen dàq. si hmm. ndax dafa soxla ku ko waxal. waaw te it xale yi jàng nañ. Hmm. lool lool xamuñu àddina hmm. xam te euh, politique euh, dañ koy jàng ah. dañ koy mun mooy wax looy def ak def dul wax. waxoon naa la ko fi ñoom. <laughs> Victor Hugo. Eh. dafa wax ne il fallait mettre un trait entre parlement. <laughs> bu doon dëgg politique la vérité tudd mm. wante yow man yow ma man bëgg naa teraanga. Mm. xoo da ngay xool politique li mu jur. Macky Sall ay moto la koy dar. Mm. mu am avion. Mm-hmm. ku mu neex dundal ku mu neex rey. waaw ami bureau su ku mu falu nga falu. Mm-hmm. waaw loolu day caaxaan. waaw loolu loolu da koy caaxaane. caaxaan te ndawul. te ndawul. <laughs> mais nag xale yi rek da gis ku si wax. gis naa ko wax si matin xool ab ab Macky Sall toog ñëpp toog mm. mun a góor jigéen du fi am digg fee maa ngi fi du ma ko def mm. wax ko si Obama mm. wax ko le premier canadien ñëpp di ko dégg te ñëpp xam na ne waxi waxi dëgg si xol lay dem waxi caaxaan si noppali jàll si la gaa yi xëy am na ku nekk ki sam xaw ma ñaar fi ñoo nax Macky Sall mën na ñoo nax ñu lii gaar ni Macky Sall def moo ko fa def su bon ko defoon nit ñi dàq ko ku gisul sa bopp si Macky Sall bàyyi ko mais ñaata la joxe si bi feebar bi amee. bari na du la. xam nga budget ñaata la conseil mu sol bi na wax ak euh, haut conseil. defal sa calcul presque cent yi yi nga wax ne yooyu nga wax ne te war la li Macky Sall génn mille millions boo calculé ñu ñaar seen budget par an li leen loolu ñu génn dina mut cent ans wala quatre-vingts ans si ay ay ay feebar rek. waaw ñuy liggéey di am seen sol am seen njaboot kon euh, doom man daal naturellement nag li ma la wax rek mage ak ñàkk gis mooy tax ñaari chauffeur du Kogalaan jóge dal fii. déedéet waaye na leer na de macha allah. leer na wante daal ma Ngom. Euh, euh, maa ngi lay sant di la gërëm. lii nag may wax. ak li ma xam. xëyu émission une heure maa ngi lay renouveler samay ngërëm. am nag xale bu ñuy wax Thierno Ba. benn yoon laa ko mu a gis. si kër ko wax El Hadj Ousmane Ndiaye yàlla yàlla yokkal leeram dégg naa sama jëkkër xarit loon Aminta Taal xaw ma këram xaw ma bureau yóbbante mu si moom yónnante mu si moom man tey gën a fonk tey gën a bugg tey laa gën a yàlla daf may teral taxaw ma ko te nag comme comme mënu ma ko si moom ba wax ak moom te rajo bi ñëpp koy déglu man ko maa ngi koy ñaanal yàlla maa ngi koy gërëm maa ngi sant te man ko yaakaar ma ñëw sa kër wala ma ñëw sa bureau mbaa ma ñaan la mbaamal dëgg kii di nga xaar ba tay am naa añ am naa reer am naa ndikk te mm-hmm. gor doy loolu doy na kon nag nga gërëmal ma ko fexeel bu ma lii na génn nag mu dégg <laughs> amel nañ la ko ndax wax dëgg yàlla lu ñu bëgg a xam ci démb yaa ngi ñu koy xamal sa sa patoro it waaw jàpp naaj wu tàng wii ngay wut émission di test si di toog di déglu moo mënoon la si bañ fekk looloo suñu liggéey te li ngay def nag ñëpp ñëpp nga la see gërëm kon nag ngom ngom caam ñaar yëpp bu baax na. <laughs> waaw wate bu ngom bi bu ko wax parce que ngom dafa doy waar. <laughs> yal na yàlla jàppale sama maam nga la wax dara. yal yàlla jàppale. amiin amiin yàlla may ñu jàmm. amiin mii nag. man nag digalaw moom dara. wante moom laa faral. garabu garabu la faral la. leer na ku ku mu neex mën ngaa féetee seen jërëjëf maam Ousmane Sène Blay moom la ñu doon dalal ci démb tey xam naa ne bu ñu toogoon ak yow waxtu yu baree bari it danañu taataan lu bari waaye yoon yemul ci benn ni ñu koy waxee tey kon ñu doon waxtaanee démission président Senghor 31 décembre 1980 li ko waraloon ak euh, li nga xam ne mooy les coulisses la ñu waxul euh, yooyu yëpp dikkoon nañ ci ak moom euh, ngeen mën a teewluwaat émission bi ci réew mi officiel suñu page ci YouTube di leen gërëm bu baax ci ànd beeg ñun démb ak tey la woon woon Fatou Thiam Ngom ci kàddu gi ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen ñu yendoog jàmm